targu.
E, No,
am na ci loo xam ni jiital nañu ko ci bande bële mat na euh, bande bu bees ñaari boor yi bu ngeen déggee ngeen yóbbaale ko ba copier ko ci tarixa bi la li ñu bëggoon nag moo di rek dajale yi nga xam ni moo aju ci wàllu Seydi Ahmed Tidiane ci mooy kan ak fu mu juddoo ak jagle yi nga xam ni yàlla jagleel na ko ko moom wala si yeneen sëriñ si doonte sëriñ sépp it ñu baax lañu ba nga xam ni di nga xàmmee Seydi Ahmed Tidiane ak sëriñ si ni nga war a xàmmee yonent bi ak yonent bi ndax loolu war na ci eh, njaboot gu ne mu xàmmee kilifaam ak kilifa yi ci def du tee na mu màggal kilifa yépp waaye nag nga jox sa kilifa la mu moom dina tax nga am ci moom cër boo xam ne bii dee su ko jaawale baax na booba nag def nañ ci itam ñaar fukki téere ak juróom yi nga xam ni lépp lu ñu wax ci tariix bi fii ci la ñu ko jëlee su ngeen ko ci gisul rek mu ñu ngi koo dégg ci sëñ Baaba Si wala sëñ Ahmadou Ali Bay radiyallahu taala anhu waaye lépp lu ñu fi wax du doon mukk loo xam ne dañu koy pelam tuugal la ñu di ko wax ci suñu coobare ndax boroom xam-xam yi dañu wax ni wa min barakatil ilmi wa quwwatil i'tinaa'i bi asu kulli xawlin ila qaa'ilihi li yanzura al ulamaa'u fii nee na lépp loo wax war ngaa wax fi nga ko jëlee ba nga xam ni bu boroom xam-xam yi jógee seet ko foofee ndax ñoo ñee nga ko jëlee ñi ñu war a déglu seeni wax lañu wala warees koo déglu looloo tax ñu indi téere yooyu ca bànd booba yi nga xam ni ci tariixa bi lañu mat na ñaar fukki téere ak juróom-ñaar moo tax comme waxtu yi dafa xat moo tax duma ko baamu waaye yëpp ma nga ca bànd booba bokk na ca itam tam la ca nekk Seydi Ahmed Tidiane ki ko jur ak ko ko jur ba ci yonent bi ndax lu jëkk nanguwul woon a askanu ci di feeñal benn askanam ci yonent bi ba ba mu amee fatulaayal akbar la gis yonent bi nag mu ne ko anta wala di anta wala di anta wala di mu soog a wax nag ni moom sërif la waaye jikki-jikki naan sërif nga nag te amoo ci lu wér bàkkaar bu rëy la moo tax nag ba mu ko ba ko yonti waxee la soog di jóg naag naa ahmed ibn muhammad yi tiijaan yi alxasan yi loolu itam defoon naa ko ca jagleel yi nga xam ni jagle yàlla jagleel na ko nag ci biir nit yàlla yi yooyu yëpp ma nga ca bànd ba la ca nekkul nag mooy lay yi nga xam ni nag moom la boroom xam-xam yi lay ca yooyee mu wax te soo ko déggee tey kontarkat wala kontarkat jël ko kontar ko andil la ko yow mii Tijaan xëy na doo ko mën a tontu waaye tontu yi ci Alhaji Omar tontu yépp dinañu ko def ci beneen bande jox leen ndax comme dañuy li mu wax ni benn wàlliyu du naan ci wàllu yàlla dara te jaarul ci moom wala mu ni ruuxi wa ruuhu haakasa fa asaara bi asbuaihi alsababata walwusta ruuhu sallallahu alayhi wa sallam tummidul axta ambiyaa walmursalina wa ruuhi tummidul axtaaba walarifina maanaa dafa am benn bés mu yëkkati loxoom ni sama ruu ak ruu yonent bi nii la mel sama ruu ruu yonent bi mooy tëbb mboolem yonent yi ak mursalina yi waaye sama ruu mooy tëbb axtaab yi ak aarifin yi yëpp kenn génn ci te loola mi ngi dalee ba yàlla bindee aadama ba kër àdduna yi tukki bu ko defee nag kontarkat yi dinañu ni waaw xanaa moom dafa wax ni kon moo gën saaba yi ndax saaba yi ci biir loolu la ñu ne kon nag loolu dina laaj boo ko waxee te kontar kat jóg bëgg koo kontar kay taalibe war naa xam na kon nañu koy tontoo wala boog mu ni kullu ma faada wa barasa min saati min saati sayyidi wujud tatalaqaa sawaatul ambiyaayi wa kullu ma faada wa barasa min sawaatil ambiyaayi tatalaqaaha saati wa mini yatafaraqu alal xalaayiq te loolu saaba yi dafa mel ni ci la ñu bokk kon nag su ko nit ko eh, jëlee dikk kontare la ko war ngaa xamit li nga koy laaj am de sëñ Omar kon nag loolu it defe naa dina mat a xam waaye comme ma nga ca bande boobee du aajo ma delluwaat ci waaye li nga xam ne daal bëgg nañ cee commencé tey ci bande bi moom moo di aslu talxiini wal askaari maanaa nit jóg ni day ñaan werd dem ci sëriñ ne ko damay ñaan werd bi wala damay ñaan turu yàlla bi wala damay ñaan salaatu bi bu ko defee kontar gi dañuy wax ni alxuraan ñépp ko bopp kenn moomu ko kon nag jarul ñaan Euh, kon nag bu fekkee ñu ngi koy ñaan ñi di ko maye fan lañu ko teg ñoom waa tarixa bi Euh, su fekkee ni itam dañu ne alxuraan doy na sëkk soxlawul ñu boole ci lenn te yow ngay jàng ay yëf yoo xam ne yi ñenn kontarkat yi dañu naan alxuraan moo gën lépp di la ko yokkat lool ana kon nooy def ak loolu ngay jàng yooyu foo ko jëlee loolu it defe naa war nga koo xam yow ki nga xam ne dangaa jël tarix Seydi Ahmad Tijaan dëgg la kay alxuraan kay moo gën lépp waaye bi mu gënee lépp itam li nuy jàng nun alxuraan la te alxuraan jooju itam la ca gën moom la nu sëriñ sëriñ jox te itam boo ci tariqa Seydi Ahmad Tijaan nee na li gën a tuuti ci li nga xam ni taalibi Tijaan bu ne war na koo jàng bis bu nekk mooy ñaari si bi alxuraan ñeega mokkaloo loolu mooy li ci gën a néew kon taalibi tijaan bu ne war ngaa jàng ñaari isbi alxuraan bis bu nekk kon nag defe naa kooku néewul bu kenn jàng alxuraan soo ne alxuraan dafa gën it d'accord nañu ci waaye fekk nga ni loolee gën it moom lañuy wedde nun kon nag taalibi tijaan bu ne war ngaa wàcc alxuraan weer wane benn yoon loo yaafus yaafus loo yàkkamti yàkkamti loo gaaw gaaw a dem marché loo gaaw gaaw a dem bureau ba ak loo taj ba taj bee loola war nga koy def su fekkee mënoo ko bala ngaa xëy boo wàccee ba nga def ko wala nga yor sab jukki boog di jaay tey jàng nee na alxuraan yi li ci gën lépp moo di laa ilaha illa allah boobi bokk na ci li ñu sëriñ ba jox ak salaatu ala nabi bi nga xam ni yàlla ci boppam sax day da koy def malaayika yi di ko def sant nu it nu di ko def bu ko defee nag lu nit mën a mën a kontar tarixa Seydi Ahmad Tijaan moom mënu cee kontar dara léeg-léeg nga gis ñi nga xam ni jóge nañ ca réewi yaaram yi dikk ni yéen da ngeen ay bidaakat ngeen ndax yàlla dafa wax ne alyawma akmaltu lakum diinakum comme wax na ko nag lépp lu ci waaye ni sosaan ginnaaw bi bidaa la te kullu bidatin dalaalatun kullu dalaalatin fi fi naari loolu de wax na dëgg waaye da koo tëral nag fu mu tëddul ndax bay alyawma akmaltu lakum diinukum laataa wàcc nun sunu astaghfirullah bi wàcc na salaatu ala nabi bi noonu laa ilaha illallah bi noonu kon nag loolu ñu jàng nun dafa bokk ci li dikk ba noppi mu soog a mat kon nag bu mu la yokkat loo loolu mu ni itam lépp lu ñu sos ginnaaw yonent bi bidaa la dëgg la sax nay bidaa waaye nun li ñu yor nag sosunu ko dikk na ginnaaw lu njëkk yonent bi dikk na ci jamono yonent bi ba yonent bi di ko jëfandikoo saaba yi te it du yëpp bidaa yëpp itam mooy bidaa bu yóbboo sawara ndax weeru koor bu njëkkoon ci jamono yonent bi jamono baaba ko sa dee kenn ku ne da ngay naafila sa néeg rek ci jamono Seydina Omar la dajale ñëpp ñi ñu- ñëpp dajaloo di naafila ci jàkka ja comme nii ko waa Màkkay defe tey Seydina Omar yi ni'mati biddatu haasi yi bii bi daa day baax na kon su bonoon Seydina Omar du ko wax te Seydina Omar yonent bi neen lu mu def dëgg la lu mu wax dëgg la kon ñooñu nga xam ne dañuy wax naan ay biddaa la Sambati Njaay dañoo bëgg a yokkatoo nit ñi rek te indi leen ca la ñu nekk ñoom waaye ñun ñi nu nekkal dañoo jàng xam-xam yépp ba noppi jëfe lépp itam ba yàlla may leen du yóoru xam-xam nag ñu xam lu ñu xam ne si ñi gaa yi ci xamuñu ko su ko defee nag ma andi ci aslu talxiin bi ma waxoon dafa wax ni rawa al imaamu ahmad fi masnadihi bi isnaadin xasanin wa tabaraani wa gayruhuma an yaala ibnu sadaat qaala xadasani abi shadaat ibnu aws wa ubaadatu bnu saamit حاضر يصدقه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم غريب فأمر فقلنا لا فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله فرفعنا أيدينا ساعة ثم قال الحمد لله اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة فإنك لا تخلف الميعاد ثم قال أبشروا فإن الله قد غفر لكم نانا كوني واخ أحمد بن أنبل ميغا خمني طالب إمام الشافعي لا تي إمام الشافعي طالب إمام مالك لا Ahmad ibn Ambal moomu nga xam ni mboolem waa Màkka waa Abdul Ijaas waa Màkka ak waa Midina yépp ci am ngërëm la mu wax ni jële na ko ci ñoom Maalik ak ñoom Shaafi loolee ca la ñuy jaamoo yàlla ñoom waa Màkka gépp waaw kookee nag nee na jële na ci ku ñu wax Yaala mu jëge ci yi nga xam ni sodaat ko ci sodaat mu ne waa sama papa waxtaane na ma nii dafa am be te bi mu koy waxtaanee Ubaadatu bnu Saamit bi nga xam ne saaba yonent bi ren mi ngi toog dafa wax ni yonent bi dafa am benn bés mu ne nu yonent bi dafa am benn bés mu ne nu ndax am na kenn ku bokkul ci yéen ku fi nekk maanaam ndax am na ku leen ndax nu ni ko déedéet mu ne kon yëkkati leen tëj leen bunt bi nu tëj bunt ba mu ne yëkkati leen seen loxo nu yëkkati suñuy loxo mu ni wax leen laa ilaha illallah nu wax laa ilaha illallah ba mu mat waxtu mu ni wàcce leen seeni loxo nu wàcce seeni loxo mu ni yow yàlla baat bii nu wax waxtu yónni nga ma ko digal nga ma ma wax ko dig nga ma ci àjjana wàcce leen seen loxo ba ñu ko wàccee ni kontaan leen yàlla jéggal na leen loola ana lu mu tekki mooy bi yonent bi wax gaa ñi ni leen ndax am na ku leen ndax nu ni ko déedéet mu ni yëkkati seen loxo nu yëkkati seen loxo mu ni wax leen laa ilaha illallah ginnaaw bu mu tëjee bunt ba loolee ba ko yonent bi def fekkoon na ñu ngi koy wax ndax ci la ñu duggee ci lislaam xeex ci ba dugg gaa yëpp dugg ci lislaam mu soog leen ko wax kon nag ana lu tax yonent bi di leen ko waxaat loo mooy isnul xaas ba la leen doon jox waaye doo fekk kuy wax laa ilaha illallah nga naa ko waxal laa ilaha illallah te dara taxul ndax mi ngi ko doon wax nee na kooku bokk na ca cosaan ya cosaanu ñaareel ba ni na ina aliin ni na abi taalib karamallahu wajhu saala nabi sallallahu alayhi wa sallam fa xaala ya rasulallahi dullani ala aqrabi turuqi alallah ilallahi taala wa ashaliha ala ibadihi وأفضلها عند الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم يا علي عليك بمداومة ذكر الله في الخلوات فقال علي هكذا فضيلة ذكر وكل الناس ذاكرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقوم ساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله الله فقال علي كيف أذكر يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم غمض عينيك wasmaa minni salaasa maratin suma qul anta wa ana asmau fa qaala nabi sallallahu alayhi wa sallam laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mumidan aynayhi rafian sawtahu wa aliyun yasmacu suma qaala aliyun radiallahu anhu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah mumidan aynayhi rafian sawtahu wa nabi sallallahu alayhi wa sallam yasmacu nee na Seydina Aliyun dafa am benn bés mu dikk ci yonante bi ni ko damaa bëgg nga wax ma yoon wi gën a jigéen ci dem ci yàlla ak yoon wi nga xam ni moo gën a jàppandi ci jaamu yàlla yi ñi di ko jaamoo yàlla te yoon woowu it moom mooy mooy doon wi nga xam ni mooy gën fa yàlla sëy yonent bi ni ko taxool wax laa ilaha illallah ci biir mu ni ko loolu de mooy nga dellu si ko te ñëpp a koy wax mu ni ko amul kenn koo xam yàlla du wë- du du du tukkal àdduna mukk fekkee na ngay wax allah allah ci kaw suuf ngir wax rëyub allah allah mu ni ko nag kon nag yow yonent bi naka laay sikkare yonent bi ni ko gëmmal waaw yonent bi ni ko déglu ma te ma wax laa ilaha illallah te fekk damaa gëmm Seydina Ali gëmm yoon ni yonent bi ni ko waxal laa ilaha illallah mu wax ko ñetti yoon yëkkati baatam ca kaw yonent bi itam ni Seydina Ali déglu ma te gëmm mu gëmm yonent bi wax laa ilaha illallah ñetti yoon te yëkkati baatam ca kaw fekk dafa gëmm kenn ku ne déglu sa moroom wax laa ilaha illallah te fekk na ma nga gëmm yëkkati ko baatam ñëwee borom xam-xam yi nag Seydina Seex al Hajji Omar li may wax mu ngi ko wax ci rimaax ca jus bu njëkk ba ci paas téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent lii may wax ci hadis bi Seex al Hajji Omar bi nga xam ne ñëpp d'accord nañ ci wilaayaam ak xam-xam moo ko fa wax nee na kon Seydina Ali bi mu dikkee mi ngi doon xeex ji jiitu ci lislaam am na juróom-ñaari at yoo xam ni mi ngi nekk ci lislaam kenn nekku ci nee na mu ngi ci lislaam di xeex dégg nga maam di jàmbaar yonent bi ba noppi naa ko nu may sikkare na kon te kon mi ngi doon wax laa ilaha illallah kon nag du xanaa laa ilaha illallah bi muy wax nekk ci lislaam di ci rëy nit ñi xanaa du moom lay laaj yonent bi yonent bi ni ko yoon wi gën a mën a jigéeñal nit yàlla te gën a jàppandi te gën a te mu gën ci yoon yi jigéeñal yàlla moo di sikkar sustu boo wéetee mu ni ko loolu de ñëpp a ngi koy def mu ni ko nag Seydina Ali laaj ko nu muy sikkare na muy sikkare ma ni doon na ko wax lu njëkk mu di ko laaj yonent bi moo daal di yonent bi ni ko gëmmal mu gëm mu ni ko waxal laa ilaha illallah ñetti yoon ma déglu la ba ma ko waxee yonent bi itam ni gëm wax ko ñetti yoon Seydina Ali déglu ko borom xam-xam yi nag secret ba nga xam ni nag mooy tax laa ilaha illallah leeram dugg la secret boobee la ko doon jox te ba ma ko ko bëggee jox Seydina Ali dafa dem ñaan ko ci digal loolee mooy cosaanu ñi ñaan sikkar yi ginnaaw bi ci amee droit ba noppi kon nag yow mii nga xam ni sa digg yonent bi dox na junniy at ak nangam nga bëgg nga fekk fi alxuraan fekk fi laa ilaha illallah nga sañ koo jàng itam am na ci yoon woo xam ne soo ko bëggee nag da ngay dem ñaan ko ci ñi ko am ci yonent bi lu ko may am na ci loo xam doo ci egg ndax borom xam-xam yi dañuy wax ni su fekkee ni dangaa jàng alxuraan wala asmaulahi alxusna nga jël ko di ko sikkar wala ñaan nga jël di ko sikkar te amoo ci isnul xaas nee na fukk bu ne benn bu ne fukk nga ci am waaye doo ko paase waaye su fekkee ne am nga ci isul xaas nag fukk boobee ca ngay dale yow jëm kaw kon nag jullit yëpp am nañu isnul am ci alxuraan ak turu yàlla yi waaye isnul xaas nag alul xaas dong ñoo ko am te ñooy ñi nga xam ne dañu ko jox ko jolaante ba ci yonent bi loolu ni nga koy mën a dinge moo di dama la waxoon ne Sénégal ñun ñëpp a ko bokk suuf si ñun ñëpp a ko bokk ndox mi ñun ñëpp a ko bokk man ngaa dox ci mbedd mi te doo ci ñaan benn ndigal man ngaa féexlu ci garab yi doo ci yenn garab yi te doo ci ñaan benn ndigal waaye soo bëggee kees kees sur dix yoo dëkkee wala vingt sur trente yoo dëkkee da ngay dem ci Sénégal ni yow ñaan ko ci beneen ndigal bu bokkul ak ba nga ci amoon te ñëpp bokk ko ñëpp mu soog laa bindalu këyit ni la jagleel naa la ko nga soog caa mën a dëkk soog caa mën a tabax soog koo sañ a jaay loolu moo tudd isnul xaas ne isnul am bee nga xam ne da nga doon dox ci suuf seeg mbedd yi ñaanoo ci kenn ndigal waaye kër goo dëkkee nag di ci ñaan ndigal moom soog koo am te soo ko defee te amoo ci ndigal it dinañu ko tëj te dinañ la duma te dinañ la tëj itam àll bi li muy yaatu yaatu man ngaa dem dëkk dëkk dox ci fa tabaaraka la waaye tool boo béy yaakaar naa ni bala nga ko am tey jii di nga ko ñaan te Sénégal yi nga koy ñaan it ba am ci isnul xaas soog koo mën a béy man ngaa am soo xaalis jënd ci sooto waaye permis bu koy dawal donc da ngay dem ci Sénégalais ñaan ko isnul xaas ba mu jox la permis nga sañ a soog a dawal sooto wala soo ko defee foo génne gendarme yi jàppale di dinañu la alamaani te wala ñu tëj la am déet te isnul xaas boobu nag tànk amuloo ko nag sañ-sañ yee doo ko am waaye yi des féete ko suuf nag sañ sañ ko am te isnul xaas boobu it ëppante na doole ndax léeg-léeg nga am koo xam permis boo xam defe naa seen permis yi ñetti permis la am déet te benn bu boo amee bu njëkk bi du tax nga mën a dawal yeneen oto yi waaye soo amee yëpp nag sañ a dawal yëpp mooy ñi nga xam ni am nañu itlaax ci tariixa bi nga xam ne lépp sañ nañu ko liggéey te lépp sañ nañu ko maye su ko defee nag lii ma wax yëpp de Seex al Haaji Maalik wax na ko ci téeréem booba nee na loolu mooy cosaani ñaan ndigal waaye mer rek wala nga am lu la naqari tax nga naa dañuy coloniser nit ñeeg lu tax ñi di ci ñaan ndigal ak sàmbate njaay yooyu yëpp mëtu ko mi ngi mel ni tey dañuy wax ni balaa kenn nekk gouverneur nekk administrateur civil waaye man koo nekk bi ne te doo ko am nag kon nag bala ngaa nekk gouverneur ginnaaw bi nga amee say diplôme ba noppi talaata yi day jikk gouvernement bi fal la ko su la ko falee ba noppi nag sa signature mooy daw ci signature ci këyit yi professeur yeeg docteur yeeg fonctionnaire yëpp te ki la ci raw ak ki nga ci raw yëpp ñoo ci yem su fekkee rek jàpp na ko ba dem signaloo sa signaloo ko sa kayitam kayitam boobu du ko jariñoo kon loolu mooy sëriñ yi Seydi Ahmed Tidiane nee na sëriñ ci it buumu yàlla lañu yoo xam ne yàllaa leen yor pour nit ñi jafandu ci dem àjjana te boo fekkee nitu yàlla dëgg nga jaayante ak moom mi ngi mel ni jaayante nga akub yonent su ko defee nag Seydi Ahmed Tidiane moom radiyallahu taala anhu nag mi ngi bokk ci nit yàlla yi nga xam ni sowetaas lañu Seydi Ahmed Tidiane nag da waxoon naa ne mi ngi judd di gàddaay yonent bi amee téeméer junni at ak téeméer juróom yàlla nga ko defal fatulaayal akbar ba mu ak gàddaay bi amee junni at ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ci la am fàtt bu wér boo xam ne bi gis na yonent bi jaaran moo ne ko yaay sama doom maa la jur bàyyi lépp loo jëloon ci mboolem sëriñ si ma jox la tariixa boo xam ne bii moo gën lépp te lépp a ngi ci te doo beru nit ñi doo fa nekk di léegi sori sagar doo def dara mu jox ko tariixa bi nag ba gàddaay yu yonent bi amee junni ak ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ba mu koy jox nag mi ngi ko jox astaxfirullah rek ak salaatu ala nabi kepp ñaar yooyu la ko jox ba mu am ñeenti at nag ci muy junni ak ñaari téeméer ci la sogo mottali werde bi laa ilaha illa allah Seydi Ahmed Tidiane moomu nag dund na juróom-ñett fukki at mi ngi génn àdduna suba ak alxemes ginnaaw ba mu jullee suba ba noppi ñaan ndox naan ko dal di tëdd ruwam nga dal di yéeg jëm asamaan ci gàddaay bi amee junni at ak ñaari téeméer ak fanweer Seydi Ahmed Tidiane moomu nag laata mu fee jóge tarixaam boobu lu toll ni ñu toppoon yonent bi ci bi muy dee topp nañu Seydi Ahmed Tidiane ci bi muy génn àdduna muy junni nit téeméeri junni ak fukki junni ak ñeent ñoo ñi jàpp ci lislaam bi yonent bi génn àdduna lu mu toll noonu it moo jàpp ci tariixa bi ki yoon Seydi Ahmed Tidiane di génn àdduna Seydi Ahmed Tidiane nee na werd mooy lan mooy ab dog mooy loo xam ne doom aadama da koy saxoo utal ko waxtu utal ko bés mu ci waxtu bés bi mu di ko def te saxoo ko mu saxoo ko nag te fekk na nisër la wala muy kóllëre goo xam ne gii da ko façon fenn weer di yépp nag lu ñu sopp la waaye soo ko nisëree nag mu nekk farata ci yow moo tax tariixa bi su fekkee jëloo ko mun te di ko def tey werd mu nekk dong lu ñu sopp comme werd yépp waaye soo demee nag cib sëriñ ñaan ko ko nag léegi mooy nisër bi nga xam ni nag léegi farata la ci yow ni julli nekkee farata ci yow te léegi fas nga ci kóllëre boo xam ne bii itam sañatoo ko fecc ba yamal xayaat loolu moo tax soo ko ñaanee ba noppi bàyyi ko bàyyi ko kenn mënu laa tee dem sawara nee na nag masal mu njëkk mi nag mooy mii nee na laa yas yow mutlaqul wirdi laa budda bi xastil wirdi allaasimi almuayyanu bi waxtihi sabaaxan wa masaaxan nee na boo jógee di werd boo ko yéenewul amuloo werd boo demee di werd kese rek wala ngay julli kese rek amuloo julli amoo werd foog pour werd bi nga def ko da nga yéene ni yaa ngi werd werd Seydi Ahmed Tidiane bii nga xam ne yaa ko ñaan te yaa ngi werd werdu suba wi wala yaa ngi werd werdu ngoon wi soo defee loolu nag kon yéene nga werd bi waaye soo ko werdee te amoo ci benn yéene kon werd woowu baaxul mooy benn ñaareel ba fa sab yu yasiwu isnuhu fi tariqati wa yustaabu tajjiluha badal buluuxi nee na xele sañ naa ñaan werd avant muy mësoor waaye dañoo bëgg nag bés bu mësooree mu dem ñaanaat werd bi yeesal ko su ko deful woon itam baax na waaye li ñu bëgg nag mooy mu dem beesal ko foofu nag léeg-léeg nga gis koo xam ne kii day jiital doomam it dem ci sëriñ ni ko may ko werd te fekk na doom jooju kat mën naa nekk ba mag tel werd woowu du ko neex wala du ko sopp toppatoo te fekk na nag obligé bu ko ba mu ñaan ko kon nag loolu itam bala ngaa jiital sa doom ni nañu ko may werd na nga xaar ba mu xàmmee ba nga xam ne lii nga koy def loo xam na ko te nangu na ko nga soo ko jiital ñi di ko may wet ndax nit yàlla yi sax dinañu ko def waaye ñoom dañ caa am na lu xam-xam boo xam ne ñun xamuñu ko comme lu mel ni ñun suñu bàyyi am na lu ma fukki doom ak nangam kenn ku ñu nekk bi muy ngénte bi mu lay ngénte ci la la may wet ci la la defal ijaasa waaye nag loolu ay jagle mag ñi la waaye nag yow mi nga xam ni éggoo ca waruloo ko def kon nag xele bu ñaanee werd bëgg nañu su fekkee nekk na mag mu beesal ko nit nga xam ne boo jullee ci lislaam loolu doy na waaye bëgg nañu nag soo ma suuree ba xàmmee nga dugga waxaat kalimatu shahada day ni duggaat ci lislaam ci sa coobareel bopp ci sa neex-neex bopp nga xam ne sa baay bi la ci dugal sax su ci génnoon yow tax nga génn ci ñetteelu masala ba nee na werd ci boppam téeméeri astaxfirullaaha la ak téeméeri salaatu ala nabi ci salaatu ala nabi gu la neex ak téeméeri laa ilaha illa allaahu lii mooy werd bi ma ni werd salaatu faatee bi nga xam ni moom la yonent bi jox Seyd Ahmed Tidiane te warul ko ca yemu ca war na moo di da ngay def faatiha benn def astaxfirullaaha téeméer def salaatu ala nabi bu la neex téeméer def laa ilaha illa allahu téeméer lii nag nga di ko def suba di ko def ngoon mu ak wasifa wi nag wasifa wi mooy lan moo di nga def astaghfirullah al azim alasi laa ilaha illa huwa al hayyu al qayyum nga wax ko fanweer yoon def salaatul fatihi juróom fukki yoon def laa ilaha illa allahu téeméeri yoon def jawharatul kamal fukki yoon ak ñaar wala boo ko mokkalul nga def jawharatul salaatu faatee ñaar fukk remplacé ko ko loolu moo tudd wasifa werd wi ak wasifa wi nag da nga koy def suba di ko def ngoon wasifa wi nag su la neexee nga di ko def suba képp wala nga di ko def ngoon dong Seydi Ahmed Tidiane nag ci mujjug dundam nu